leen ki nga xam ne mooy Thione Seck jaalee ko tam njabootam gi jaale ko tamit président général di Bougane Gueye Dany jaale ci oto yeeg comme ni ko Yaas di waxee nuyul ñu mhm. ci oto yi ak ñu ne ci marché yi jaale ko Sénégal gi yëpp parce que moom nekkul nit koo xam ne dañ naan ñu ne ki gaañu mooy kat mhm. réew mi ñëpp ko xam waaw bu ko defee nag Yaas lii mu def c'est normal xam nga lu tax mhm. sire dee mooy loo xam ni kenn du ko miin ñoom ay soxna lañu bu ñuy denc du ñu dem armée de xam nga takka fi am mm-hmm. ak ngénti mm-hmm. ak dëj ñun yii lañuy faral di à part anniversaire yi nii mm-hmm. waaye muy ngénte li ci bu ñuy tudd ceet li bu ñuy muur xam nga moo war a gën a yëngu gën a bari wax waaye dencug néew di ko dugal ci pax coow li am foofu da naan léegi-léegi nga dégg ñu ne gars yi wàññi leen wax ji waaye wàññi leen wax ji xamal lu ko waral siré kenn du ko miin bis bu ne nga ñëw denc waaye boo ñëwaatee day mel ni tey ngay doog a denc non nii la nii la bopp bi nii non non non eh ak ku yor foofu paaka ku yor gars yi wàññi leen coow li waay gars yi que kenn du ko miin nit moo doy waar dee moo doy waar Abdourahmane Fall Tilala nee na boo rombee ndox ci kaw tali da nga naan waaye ndox mi fu mu jógee nga romb essence wala gasoil bu tuuru nga ne nii waaye boo rombee dret ci kaw tali bu bëri bu tuuru nga ni mm. i dret la yow parce que nit nit nit du nit du nit nit lu doy waar la mm-hmm. moo tax mënuñu koo miin moo tax yaas am comportement bi mm. waaw bu ko defee nag mm-hmm. jaale waa réew mi yëpp yàlla moom lu ne la koy defee mm-hmm. te fu ne la koy defee du tàggoo dafa am benn waay bu ñëw ci yonent yàlla Suleymaan ne ko damaa bëgg nga boole ma ak sa ngelaw li parce que yonent yàlla Suleymaan yàlla da koo dénkoon pouvoir da koo may ay pouvoir soldaaru jinne ba may ko sot pouvoiru ngelaw li ngelaw li daanaka moo nekkoon avion bu ne neexee nga dugg ci mu yóbbu la waa ji nee mi ngay daw dee ndax ni yaramam bi mel buñ ko doon xayma tey dañ naan jëlee ko Sénégal yóbbu ko Chine nee na day daw de mawti jaar ci yonent yàlla bi siyaare ko ba pare maa nga jëm ba siin di dem di jëli amet ndax dégg naa ma nga te moom mi ngi doon daw fii déegi foo dem mu fekk la fa borom bi façon bu ne jëli na ko bu dee Seydina Mohamed da ko tàggu ne ko bu la neexee ñu def ko tey wa ilaa ñu aj ko ba à une date ultérieure mhm. yonent yàlla Iisaa borom bi ne kii moom suuf du ko féete kaw déggoo ma de du noonu Souleymane tabax château ba mu paree fi mu ne nii de mawti ñëw ne ko tey la yonent yàlla Ibrahima feem la yàlla ji dóor parce que da koo rusoon pour jël ko ku nekk ak ni ngay demee ku ne moo tax nag delloo xel yi ca yàlla te ñun ñii taxaw fii nii yëpp li sa ngee ñëw suñu foto fii lañ koy teg nii naan Ahmed Aidara est parti ku nekk sa naan Adji Ahmed une voix nangam indi nii nii la revue de presse nee nee ku nekk fii fii fii photo bii photo bii man sama bisa ngee ñëw fii la ñoo def sama photo ko fii ci journal nii. yàlla na yéex. yàlla yéex yi rek la ñuy wax. Mhm. léegi nag corona bi nga xam ne nee nañ moom moo ko fi jëlee siré ñu def attention. tigi tigi tigi dégg nga xibaar yi ñu jot ñu jox ñu tamit ndigal ba ci soxnaam ci boppam nee nañu yaramam dafa sutante. moom it mu fatu. Oh. ñenn ci biir famille bi it teste nañ leen ñu positif. normal ci xibaar yi ñu jox. Mhm. avant ñoo yéeg fii. Mhm. kon nag ñu gën moytu. gën a gën a gën a président de la république li mu def nii ne ma ngay ubbi nag fi mu nekk nii li Ibrahima Touré wax mooy ku nekk nga jël sa responsabilité ku nekk tamit nga nekk sama ko bopp. xooj nañ leen tëj leen ndax feebar bi neex nañuy neexul ñii tere naa liggéey ñii terewul liggéey ñee mbir mi tar na ba mel ni tiraayu ba mel mu ne ate kon bisimilaay ku nekk léegi nekkal sama ko bopp. loolu mooy dundalee ndax. séré bu leen nit nuyoo mais amee te xanaa xamoon ne lii ko. Mhm. asalaamualeykum ñaanal naa la yow ma mbay nga ne ma aleykum salaam wa rahmatullah yow it yàlla na yàlla def jàmm ci yow doy na ci nuyu joxim loxo gi lañ war a bax gaa yi yemuñ ca léegi dañu sa accolade lex ak lex ba ci démb ci direct bi kii lii moo ko fi jëlee te lii da koy bañ nga ñëw ci dajam di ko fa def di joxe loxo day wala dëgg waaye Siré day am kersa su ko amee Aïdara nuyoo mu ne ko amee grand mu ne daf maa peeral na la mere te nga dund te la mérité nga noonu. ci fulla la bokk sax. ci fulla la ku ñëw fii taxaw chaque jour ñu wax ko nit ñi toog leen seen kër nit ñi bañ ñëw sa buntu kër nga ne leen eh nee leen waaye da nga ah, yaas ne ko hmm. nit ñi bi mbaa mere. na la mérité ngeen dund yéen ñaar yow xamoo ndax mi ngi ci yow man mii taxaw fii xaw ma ndax damaa corona déggoo ma de daaw de mii ñëw ci man xamul ndax moom dafa corona ndax am na ñoo xam ne day feeñ ci ñoom daaneel leen ak ñoo xam ni seen tooy la voilà. ah yal na yàlla dolli jàmm daal ci biir réew mi. alhamdulilah. mooy fàtte gu njëkk gi. gars yi léegi takkatuñ masque de amet. Hmm? yàlla yàlla dolli jàmm yéeme na. yàlla yàlla dolli jàmm. terminé kaay ñëw ak ñun ci dañu ñàkk na ko rëy Papa Thione a nii dem na maître Ousmane Seye ne tribunal bi gën a kawe àjjuma ci boppam la ko seetal ba mu set wéet ci coowam li mu amoon ab dimanche su démb coon def ko journal bi ne moo tax buggaan ngay dani ak Wally Seck mi ne ñàkk nañ nan de ku leen doon xelam koo xam ne ku ku xam àdduna ku xam àdduna moom la ñu ñàkk président de la république Macky Sall xam le ne coon Seck ku mbokkal génération baay nga ko xel liggéeyam ba set na sell na vraiment Walfadjri ñëw ak ñun ci coono ngi nii juróom-benn fukki ak juróom-benn ci la ko def kàddoom nga yem fa seede yi bari na delluwaatu ginnaaw xool jaar-jaaram vox populi nañu papa coono ngi nii wallaahi dem na mënoon hmm. wax joo xamante ni nii wax ju wax ju wax ju mën a defar wax ju teey bu dee moral ak moral rek mooy pee la parole yi ngi nii mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo fa daje démb day bëri na lool dégg nga Sud Quotidien nañu mi ngi nii tàggatoo bi àjë papa coono ngi nii dem na allahu akbar dégg yu Youssou Madi Gendou duur nee na coon sekk ci boppam moo ko présenté grand public bu Sorano dégg nga loolu Le Soleil yéene kaay ñëw a ci waaw kay bu mu jëm baa ngi nii la dernière not d'un parolier hors pair ba pare journal bi ngi lay wax ne la coon lu mu woy téere la lu mu woy téere la moo doon wax ne way bu njëriñul jàngalewul ah wul yeetew lay naxaate la ah na dëgg de kooku ah kooku moom yaakaar naa ne kooku moom kooku moom yëpp xam nañ ko ci moom mu moo taxi it démb li ko dell li ko nit ñi delloo njukkal ci mim réew bari na lool l'observateur ñëw ak ñun ci kàddoom gën a guddee na Thione Seck la voix d'or voix bi nag nekkul de apostrophe OR de d'or ak tee ca ginnaaw dégg nga loolu ñeent fukki at ak ñeent ginnaaw nga xaritam ba di lay jigal demee Thione fekki na ko mu ngi nii Eh, eh, Waly Seck doom ñi nee na coon na am dem na waaye ñoom nag mën nañoo compter ci ñëpp ci ñi fi des adduna bi yëpp war nañ leen a mën a teg loxo mm-hmm. bu leen yàlla tegee loxo rek ñu dem na bu leen borom bi tegee loxo yàlla dafa ne mawti ndax mës ngaa rey yërëm est-ce que moolaaka mawti moom am na am na am na xol yow Siré mm. moom xàmmeewul liir xàmmeewul ko am huit ans xàmmeewul treize ans moom day rey rek moom daal day xaar ñu ne ko reyal mu rey xàmmeewul jigéen xam xàmmeewul ko ëmb da rien yàlla ne ko est-ce que mës ngaa rey yërëm waaye est-ce que mës ngay rey nitam tiit yii punkal mi moo ko reyee gars yi baa dem waa gàllem duñ ma indil ay tuuti wala ñu rey ma Mawti ne ko mës naa rey tiit te mës naa rey tam yërëm mu ne ko kan nga mës a rey yërëm mu ne ko dafa am ngeen soxna soo xam ne daf doon dem di taxani dégg nga ginnaaw tàkkusaan timis gaa ngi waaj a dugg biiram yëngal ko ci biir tool yi ku jigéen ko ëmb fa mu tëdd noonu nga ma jox mission ne ma bu muccee rek rey ma rey ko fekk doom ji nekk lu ndaw di doog a juddu bébé cordon ombilical bi butit bi dox ci diggante doom jeeg ndey ji daggaguñ xale boobu laa gëstu borom bi xoolaat ko rek yërëm ko ni kii léegi guddi jot mbaa bukki diñ ko fekk lekk ko wala dara mhm. keroog daal laa mës a rey daal yërëm yàlla ne ko kañ nga mës rey nag tiit mu ne ko yaa ngi fàttaliku buur bi dëkkoon bërëb nangam. Mhm. nga xam ne da nga koo joxoon comme doole wu yonent yàlla Suleymaan. Mhm. kookoo amoon ay soldats soldaaru jinne ba soldat pouvoiru ngelaw li sax da nga ko koo dénkoon bi ma ko reyee ba pare ak ni arme bi arme woo pour man tey chambre à bi du ko génn. Mm. sa fit bi ni rës. yàlla ne ko liir ba nga reyoon ca tool ya. Mhm. maa ko teg loxo ba mu màgg ba dëgër ba mu soppeeku dëkkam dem élection ba doon buur ba. ma may ko pouvoir ba. may ko xanaa man maa mën a tege coon dem na de waaye su ko gars yi tegee loxo it mën nañoo compter ci ñi des ma ne ko compteel ci yàlla xol <laughs> ak mën a tegee loxo libération yéeni kaay ñëw ak ñun ci papa coon a ngi nii dem dégg nga loolu les échos yéeni kaay ñëw ak ñun ci actualité gis nga Mamadou Ndiaye mii mooy ma ko seexu na Ndiaye mu ñu rey ci manifestation nee na rakkam ji ci boppam police reyu ko dañ koo jëm paaka mu dee te sërëm bi bi mu recevoir Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko wax na leen ko nee na leen ñi sama frère bi police rayu ko déedéet dañu koo jam mu dee laa séene kaa ñëw ak ñun ci Papa Thion mii ak juróom-benn fukki ak juróom-benn yi nga xam ni ci la wuy jeen nag maanaam boromam dégg nga enquête yéene kaa ñëw ak ñun ci Macky Sall ak ndaw yi digganteem ak ndaw yi daal xam naa dese naa tax neexul de neexul de dégg nga loolu 24 heures ñëw ñun ci. Papa mi tàggoo ñëwal ak ñin ci Idrissa Seck mi ne sénégalais kenn mënu leen a manipuler noonu de di leen nax waaye journal bi ne ko Idi seetlu nañ benn affaire ba mu demee ca mburoog soow ba léegi ni le code de popularité gars yi gëmatuñ ko léegi nag coow li am ci problème mu Sweet Beauté bi gars yi dañuy doxal actualité politique sans moom kon il faut mu exister ñaari déclaration bi moom Idi dem na ba xam ne yayul nit ñi wane na ay limitam te est-ce que li mu amoon ci élection présidentielle 2019 moom Daamal Kajoor est-ce que dina ko am looloo jar <laughs> ba léegi nii le mhm. ak tribune yéen nañu buggaan ngay demoon na fële ca Casamance. Mhm. Moussa mi nga xam ne moom lañ fa rey nee na jël na ay doomam en charge fii ba keroog xale yi di dëgër dégg loolu Siré. Mhm. weer wu dee wu ne dana leen jàppale ñaar fukki junni. gone gu ci ne direct news ñëw ak ñun ci Serigne Mountakha ñu ngi nii. yoo bi muy dox. ak ay émissaires ak waa MDD. dañ ko wax ne ko li ñuy sàkku ci yow Mbacke balay sa bëgg nga dimbaliñ ci. mooy ñu ñu denc ci kaso bi ñu génnee leen. mbirum Sonko it ñu leeral ko jëmu ju tee di génnee juróom fukki million dimbalee ko ñi am ay jafe-jafe waaye jël téléphone am woo Macky Sall. pour mu génnee ko nañ tëj ci kaso bi. benn ñaar dossier Ousmane Sonko yi nañ ko àtte mu gaaw. bi xam nga xam nga bi la ñuy bañ mu lalu ci kaw ndodd Ousmane Sonko. doo puus doo paas. dégg loolu nag la gars yi bëgg kon mu daal di leer ci nu mu gën a gaawee. dégg nga yaas nag tey moom tey moom yaas dafa. yàq suñu. tey moom tey moom bis bi moom. tey moom bisu altine bi moom tey moom da waaw mais mais. waaw mais c'est normal lii muy dund nii la saxaabay dund keroog ba ñëwee ne leen Muhammad dee na sala sala mhm. mhm. ñoom Bilaal seen làmmiñ yi damm ay punkal seen tànk yi damm ñii gaayen laago déggoo ma de mhm. saxaabaa leen sowe ñii ne Babacar la ñii ne Ousmane ñu ne déedéet moom kay moo ñëw ne leen soo leen gëmee ne Mouhamad nit dong la woon. te yàlla moom mooy buur bi. dégg nga loolu. Mouhamad dem na. su dee nag da a gëm ne. Mouhamad mii yàlla la ah. yéen a ngi bokkaale de gars yi ci la ñu nooyewaat. waaw yaasit loolu laa koy wax. waaw muñ rek xam ne ñin ñii nekk fi nii yëpp tôt ou tard danoo fekki Papa John. Mm-hmm. kañ la ak naka la yàlla ñu fekk fekk rek ci lu baax. amiin amiin. amiin. Oh, oh. mu fekk ñu si lu baax. man amiin looloo jar a ñaan. Ah! léeg-léeg da ngay jékki-jékki toog ne waa yow yan ñoo tiimoon Mouhamad di jël suuf di ko teg ci kawam salaasalaam. Hmm? mais ñooñu doy na waar. ana suñu boo déggee ne dañuy nelaw danga naan est-ce que ñii dinañ leen suul alaa kulli yàlla ñëpp a ciy jaar. yàlla mooy fëgg bopp yi. ma ne yàlla mooy fëgg bopp yi moo oyof. Ah! te lii muy dund fii ak semaine rek mu jeex. Mhm. parce que nag Siré. suñu yàlla bàyyi woon tey buñ ne la sa diw dee rek li nga sentir mu bakkoog yow fi ak weer ñaari weer kon ñun ñëpp dee kon néew yu bari dañ yóbbaale. yàlla moo def exprès dem dëkk foo xam ni nit du ko mën a teg loxo parce que des fois mu teg la teg jëfin yoo xam ni. soo xamoon fu mu dëkk. soo xamoon fu mu dëkk. da koy fu mu ne. waaye moom tey li wóor ba wóor bu dëkkandoo yàlla ba léegi yàlla miséricorde la quoi. tout à fait. yàlla na ko yàlla xare. amiin amiin amiin amiin. allahumma amiin. fi bay yàlla na yàlla teg loxo. allahumma amiin. fa mu jëm yàlla allahumma amiin suuf ayoon si kawam ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam. allahumma amiin allahumma amiin allahumma ñëpp. jaajëf jaajëf jaajëf monsieur le maire Aïcha monsieur le maire moom ngeen doon am si seen euh, yéenekaay El Hadj euh, euh, El Hadj